voilà Yakumba. waaw Thioro merci ma lay nuyuwaat euh, di nuyuwaat euh, ni ñu ko defee woon sànq rekk ñi sa Walf TV Pléiadu Jamono waaye di nuyu sama euh, suñu gan tey imaam Adama Traoré imaam nuyu nañu la. ñu lay fay soxna si. waa tey nag ñu bëgg a waxtaanee lu jëm ci mu lépp loo xam ne rek mooy may gu njëkk. Mm-hmm. may gu njëkk bu ñu ko déggee tey fii ci Sénégal. yu bari ànd ci ñu boole euh, lii di euh, can bi ci biir xarfa xufa yu ci bari daal dem ba cosaan bi dem bay muur li ciy diine euh, tey boo ñu doon waxal may bu njëkk ni ko Sénégal tënkee mu mën a nekk ci un million 2 million cent mille ku nekk ak li nga am lan la ci lislaam wax ak nan lañ ko war a defee fan lañ ñuy toll pour indi may bu njëkk alhamdulillah ñu yeesalaat suñu nuyoo ak suñu ziyaar mbokk yi nga xam ne moom la ñuy fekk ci plateau bii di rafetlu tamit seen liggéey bu baax a baax ñu leen di suivre saa su nekk di leen xamal ni tamit ci kër gi lañu bokk ñun li ko waral mooy suñu diggante ak euh, Oustaz Hassan mm-hmm. ñu bokkoon di jàng ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, euh, soxna Ndeye Coumba li nga xam ni moom nga laajte muy ci wàllu can mm-hmm. can suñ ko waxee rek ñu ngi waajal ab sëy Euh, damay faral di wax ci sa xutba di wax ne ñun ñëpp dañoo am suñuy aada man mii di wax ak yéen ab saraxul la laaj ci ndey ak bàyyi donc séeréer si noonu tukulóor bi noonu alors aada yooyu yëpp nag kenn ku si nekk li ngay laaj ngir canee ko sa doom du benn mm-hmm. bu fekkente ne bëgg nañoo noppalu mm-hmm. moom mooy dañuy centraliser mbir mi mm-hmm. ci diine ji nga xam ne moo ñu lëkkee ñun ñëpp su fekkente ne sëñ njagam yi dafa ñëw di ma ñaan si sama doom bu may ñaan si sama doom te moom xëy na bokkuñu aada man saraxule laa bu bu fekkente ne jubóo gi bëgg naa mu yëwén mooy dañuy jël lislaam teg ko moom day bàyyi aadaam ma bàyyi sama aada ñu jël lislaam teg ko lislaam moomu nag ci wàllu can amul amul ko limite maanaam waxul ne nangam bii la war a doon maanaam nii la war a toll. Mhm. loolu amul boo demee ci alquran ci suratu nisa mooy quatrième surat bi. mooy mhm. saar boobu nga xam ne yàlla daf ko tuddee jigéen ñi yàlla mi ngi wax naan jox leen soxna yi seen can mhm. mais amul benn limite bu mu ko wutal. donc foofu nu mu gën a baree kenn du ko naw mais nu muy nu mu tuutee tamit war waruñu waruñu ko xeeb ndax. yonent bi nga xam ne moom la nu royloo muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki mu gën a bëgg ci kaw suuf ci njabootam geeg ñi mu jaboote ñépp mooy salatuna fatima fatima bi ko Alioune bëggee yonent bi dafa insister ci ne Alioune na ko can Alioune na ko maa indi shay maa indi shay li muy tekki mooy yoruma dara yoruma dara mu ne ko déet sa manto bi nga xam ne moom ngay moom ngay faral di sol mais jox ko ko mu nekk can donc li l'islam foofu li ñuy bëgg a wax moom mooy dafa war a nekk can moom c'est symbolique. Mm-hmm. benn waay ñëw na ci moom damaa bëgg. Mm-hmm. mu ne ko waa ji soxna si moom il faut nga can ko. Mm-hmm. am na ay chartes yu bari yoo xam ne ñoom ñooy tax sëy bi am. waaye can boobu comme moom moo ñu tax a jóg. ñu wax ci waa ji dem wër ba mu sonn dellu si. bi mu dellu see ne sang bi wax dëgg yàlla man de aw mais yonent bi li mu ko tontu mooy tekki ne. affaire bi c'est symbolique daf ne ko iltamis walaw xaataman min hadid demal wëri donte jaalo weñ gu ñuul nga may indil hmm. xam ngeen ne jaaro weñ gu ñuul valeur amu ci demal indil ma donc ba mu ko indilee moo may la ko hmm. ci yeneen i xisa da gis ñu gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may na jigéen ci ay peeru daal hmm. maye jigéen ci ay saaru alquran yu waa ji mokkal mu ne njaga dangaa bëgg ndey kumba te ndeykumba mokkalul alquran wala bokk xamul dara ci alquran saar yi nga mokkal fexeel ba mu mokkal ko mu doon canam donc c'est symbolique kon lépp loo xam ne aju na ci bu ñu ne may bu njëkk ak waru garak yooyu détail yooyu munoo dem ci benn tex ci wàllu diine ba gis ko ci du ci am mais damay wax ne ah, euh, askan wu nekk ak ay aadaam ñun salaxul lay suñu takkum jabar day day day metti mm-hmm. parce que xaalis bu bëree bëri lañ ciy def par contre nga gis ñoo xam ne dañ naan la indil ma ñaar téeméer rek léegi nag la ca des la ca gannaaw loolu bu la neexee nga jox ko sa soxna parce que jigéen moom ak lu ñu mën a def ci moom kenn mënta am njëgam. Mm-hmm. ba tax na wàllu can moom lu mu mën a toll baax na ci wàllu aussi ñu koy définir niñ koy définiree. Mm-hmm. masalan ñu war a maye benn euh, soxna. ñu ñëw ci jàkk ji imam bi jël décision daal ne ñun suñ jàkk ji buñ fi mayee jànq nangam lañ koy cane buñ fi mayee jeeg nangam na lañ koy cane loolu du cëram mm-hmm. can ki koy définir mooy waay juru góor waay juru euh, soxna si maanaam ay kilifaam yu góor ñoo koy définir même yaayam sax du ko définir mm-hmm. euh, sëñ jagam yi dafa bëgg a mayee doomam mooy wax ni man can li quinze mille francs la wala cinquante mille la wala un million la léegi nag ci biir loolu ah ñu laaj imam aada bëgg nga mu ne waaw waaye awma ma quinze mille yi ñu ma laaj mais am naa cinq mille bu ko neexee mu accepteel ko ko mu ne ko kon dix mille yi ci des tel date nga koy fay parce que il faut ñu bàyyi xel ne can loolu aussi ndaw si moo ko moom moom kenn moom ko kenn war ko bokk moom bu ko defee su ko neexee da ngay gis koo xam ne dañ koy jox càmmam sax mu mayaat ko jëkkëram. Hmm. lu tax parce que. yaay moomul baay moomul nijaay moomul bàjjan moomul kenn moomul moom moo koy jël mag ñu baax ñi nag dañ ko daan def ñu ne soo gisee ñuy laaj yenn montant yi. Hmm. surtout si jamono ji ñu ne nañ nañ fexe. Hmm. ba mu doon loo xam ne soxna si dina si mën a jënd ak malaan moo xam ne bés bu problème amee. wala mu nekk ci ay tolof tolof. même doomam sax feebar wala yu mel noonu. muy ñaan borom bi subhaanahu wa ngir yàlla saafaraal ko loolu wala benn soxla bu taxaw mën naa sangu ba set sol yére yooyu bu ci jullee ñaan ci suñ borom bi dana ko nangul ñaanam moo tax ñu ne dafa war a doon loo xam ne soxna si bu ko jotee dina ci mën a jënd loo xam ne dana ko mën a sangu ci yeneen aada yi am na ñoo xam ne ay jur la ñuy laaj. Mm. dañ naan indil ma fukki nag. Mm. am na ñoo xam ne dañ naan indil ma ñaari nag. ila axir waaye li ci ëpp solo mooy li ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni jigéen ji nga xam ne biñ koy takk lan ko teñee dafa néew sëy boobu moo ëpp barke mm-hmm. loolu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa insister ci loolu wax ne bu ñuy mayee suñu doom yi buñ ci laaj laaj boo xam ne day fitnaal ku góor ki te it bëri na fu ñu laaji alal ju bëree bëri sëy ba naqari lool mm-hmm. li ko waral mooy bu fekkente ne waa ji nekkul nit koo xam ne euh, nite na wala mu nekk nit koo xam ne euh, diineem euh, géeju na ci lool moom pour moom esclave la am parce que alal ju bëri la ci def boo ñëwee def naan la li ma def ci yow donc nangam ak nangam nangam ba ci mm-hmm. àll bi fii mm-hmm. gis nañ ay askan woo xam ne pour ñu am soxna mm-hmm. day jafe dañ ciy dépenser lu bëree bëri moo tax bu soxna si ñëwee ñoom dañuy wut client mm, daal di tëdd soxna si di kii parce que dañoo dafa mel ni lu ñu jënd kon l'islam daf ñoo yombalal lépp mooy mën nañ ko waxtaane mu nekk benn montant boo xam ne c'est symbolique la ca des nag waa ji mooy am ngoru ki ñu ma jox ëpp na ay milliards jigéen la moom la yàlla euh, euh, dénk li nga xam ne moo gën a cher mooy moo moo ëpp euh, njariñ ci àddina muy jëmm doomu aadama ci boppam bu ko yàlla di dénk jigéen la koy dénk moo koy ëmb moo koy wasin moo koy nàmpal moo koy moo koy ila axir te yaay la ñu bàjjen la ñu sœur la donc dañ leen war a yërëm ci ñoom bu ñu xasee ba jot leen rek dañ leen war a jàppale bañ bàyyi xel li ñu des ci ñoom ak lu mu bëri bëri loolu moom euh, Seydina Omar masalan jamono dem na ci Màkka ñu dem ba can li nit ñi pour ñu am soxna affaire bi xaw a jafe parce que li ñuy laaj dafa bëri mu ñëw def benn fatwa julli ba pare rek daal di def benn sortie bëgg a wàññilu can li mais soxna yi dañ ko tàccu hmm. ne ko yow yàlla ci boppam àddu ci alquran ne nañ ñu jox nga ñuy bëgg a yemale bàyyi ko rek ni ko yàlla defee parce que yàlla waxul ne joxe leen 1000 francs wala 1 milliard hmm. waxul loolu dafa ne nañ leen nañ leen jox jox bi moom obligation la comme ndigalu borom bi la obligation la comme définiruñu nag ñaata la bul définir yow ñaata la. loolu yëpp dafay tegtale ne rek can li moom mënta ñàkk ci sëy bi su amee mooy dëgëral sëy bi ak coow li lu mu bari bëri buñ ne seede yi lañ teew na na na soxna si am kilifa ñaar ñi nañu bëggante ila axir yooyu yëpp ay charte la yoo xam ne ci ci sëy waaye bu can li ñëwul du sotti. yooyu yëpp mun nañ ko waxtaanee ba pare gis nga bu canulee ndaw si amul droit wéet ak moom. maanaam amul droit am ak moom benn rapport mm-hmm. islam da ko koy aaye il faut mu can ko mm-hmm. can boobu obligation la coow li li mu bari bari bu fekkente ne léegi indi nañu un milliard wala ñu indi un million comme suñu jamono ji mm-hmm. masalan ñu joxe benn montant deux million tegal ci ay délégation ñëpp ñëw ñu joxe joxe gu ñu can de may bu njëkk lañ waaw moo tax ma ne la loolu aada la du lii can dëgg dëgg dëgg en général ñu ngi koy définir ca mosquée ba. kon ma doguma la mais kon can fi ñu mayee ba pare rek la can doo a mën a génn. non non avant ñuy maye. Hmm, avant ñuy maye lay génn ci jàkka ja lay mën nañ indi la may njëkk au mois mais mhm. boobu can dugagul dugagul tànk yeggaguñ ca jàkka ja ba war a maye très bien xam nga léegi waa ji mën na joxe un million mhm. ñu def lépp ba jour ji mhm. ñu ne tey lañ koy maye maye guñu ko de gis nga un million yooyu dugagul bu ñuy bu ñuy conté kenn du ko ci compter waale loolu du can am na ñoo xam ne nag dañ naan la dama lay jox un million waaye lépp ngi ci can gaa yëpp waaw lépp ngi ci biir xam nga bu ñu ne lépp ngi ci biir comme fii aada yi dafa bari da ngay joxe may bu njëkk warugar nangam nangam ñu ñëw encore ñu ne jàkka ja lii lañ fay joxe nga joxe waat ko ñu ne ndaw si dafa war a sëy si ñu ne indi wàccaay nangam nangam am na ñoo xam ne dañ koy globaliser rek joxe ko benn yoon. daal ne lépp ci la bokk. bu ko defee ne parents yi. Mhm. ñoom ñooy génnee benn montant en général montant yi yóbbu si jàkk ji sax dafay nekk ay montants yu dérisoire. mën mhm. nañ jox femme bi 2 millions. Mhm. bu ñuy ñëw ci jàkk ji ñu indi fa 15000 comme do waaw. mais kon loolu dafay wane ni jàkk bi amul lenn loo xam ne moom war na ko imposer. non non non can bi lii la. mooy li ma waxoon sànq rek ne. waaye juru ku góor ku jigéen ki waaye juróom bu góor mooy déterminer montant bi mooy wax ne nangam lay canee sama doom te foofu négociation la aussi ak ki ñuy may su fekkente ne dañ ko wax ne cinquante mille la mu ne ah man kat aw ma cinquante mhm. bon vingt laa am mun nañ ko ko nangul comme mun na wax ne d'accord naa ci cinquante yi waaye vingt laa ci mën a dugal. Mm-hmm. bor boobu yooyu yëpp lislaam nangu na bor boobu kañ lañ ko war a fay am na app wala li ñuy wax ni dafa lay toog ba faw tànk fayuloo ko yaa ko yoreel. waaw bien sûr nga bor moom bor la rek waaye en général lu mel noonu ci maxdar bi maanaam euh, maxdar mooy procès verbal yi nga xam ne moom la ñuy bind. te loolu dañ ko war a bind en général. Mm-hmm. toog ñu naa sa njaga yaa seede loolu kat can li nangam ak nangam utaat beneen seede léegi nag. ñu ngi si mois de janvier nga ne avril laa koy fay mais bu avril jotee imam ba war na woote ne diw yokkat kat ameloon nga soxna si nàngam foo ci toll gis nga contrôler ndax fay nañ ko am na yoo xam ne soxna noonu lañ koy maasalee ay doom juddu si ñu màgg mais fekk ndaw see moom yëfam loolu moom tamit amul problème bu bàyyee mënee bàyyi noonu non moom yëfam la hmm, bu baax su ko neexee mu bàyyi parce que moom moo ko moom su ko neexee mu ne jéggale naa ko mais loolu tamit daf koy confirmer mais su si si noppee rek xam nga jéggale amul mais bu ko jéggalee au fond si biir xelam wala xolom te fekk fësalu ko te te bañ koy bañ ba euh, bor ba bañ koy bañ koy fasante dafa amoon ay seede mm-hmm. donc bu fekkente ne jéggale am na dafa war a am ay seede aussi mm-hmm. Mm-hmm.